Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakaatu waa wér gi yaram ñu ngi nuyu ñëpp mbokk moomu doon laaj ci walu xorompolé xorompolé day lu bari ñëriñ la té yagg fi lool bokk ci fajo di ko dundee te bëri anam yuñ koy jëfëndiko lool nak ndax mëna na ak li ñuy dundé ba ci ñuy wala yi ñuy naan te mëna a ak yi ñuy tocc ko sax ci walu yaram yu ñuy defar deru yaram mën naa ànd ak yi ñuy fajoo euh, ci wet gu ne nag nekk loo xam ni it lu yaatu la ci biir àddina bi it bari it ay tegtale ki wax yu bari lool ba ci sun fii ñu nekk sax sun mag ñi fii xamoon nañ ko yaa ngi dégg kàddu goo xam ne sax ñu ngi koy askale ne sëñ bu mag bi ne moo ko wax gis naa ñu bind ko nee na su xamoon maanaam borom barab mba xorom polle su ko teeloon xam nee na benn bëñam du dem kon loolu rek tegtale na kon lu bari njëriñ la surtout ci wàllu bëñ te loolu gis nañ fi ñu baree bare bari di ko fajee wàllu bëñ lu bari ay ferñeent la it ndax am na ay vitamine surtout vitamine C vitamine K am na it ay xeeti mm, ferñeent yoo xam ne lu mel ni magnésium potassium fer phosphore sodium calcium manganese yoy ya, yep magnesium boko demé dang ko ci fekk fibre ak yenen yu bare bare sax yo xam ne ma ngi farignent yo xam yu gaaw ci ray ay microbe ci la bok motax mu bari njëriñ te ma fajj lolit loolit na ci njëriñam bokk na ci ni ngui jëfëndiko it mo xam dang koy def sunguf wala mo xam moom doomam yu non rek nga boole ko dara meew baxal ko tàngal def ko ci ndox baxal ba mbax nga segg def ci meew lu yem lu toll ci sa cafka rek yoo xam ne yaa ngi yëg ne ma ngi saf saf na ci lii moom ak loo ko mën a lekkal da nga xam ne lii moo xorom pare wala nga boole ko sa kafe wala boole ko sa ataaya dégg nga wala sax nga def ko ci sa looy lekk mën a doon bari na nuñ koy jëfandikoo am na ku ma nettali sax ne ma maamam wallaay na maamam la wax nee dem na ba àgg ci daanaka jege téeméeri at te moom rek la daa jëfandoo lenn lu ataaya bi mu daan naan du ko naan mukk te dafa ñu xorompale waaye ba bi mooy toll foofu ay bëñi moom mu ngi moom te booba nee na koo gën a dëgër te wàllu njaboot it noonu bokk na ci nag ñuy ko toomaalal loolu naan nangam njaboot waaye loolu moom nekkul lu wér donte bind yaa ngi koy bind di ko wax waaye li ñuy jëfandikoo dafa gën a wér li ñuy wax rek. te gis nañu koy jëfandiko ñoo xam ne wax dëgg yàlla loolu la xanaa nag mu ëpp te lu ëpp moom fenn la jëriñul waaw loolu moom ba ci ndox mi sax ko jëfandikoo lu ëpp moom da nga koy gis moo tax suñ koy jëfandikoo lu yemam ak njëriñam kese la ñam kon képp wax ne yaa ngi koy jëfandikoo ci wet gii ma wax da ngay tàngal sa ataay boole ko moom sa café boole ko moom da ngay tàngal noonu ba kii nga boole ko meew di ko naan ak yum ci mën a doon boo koy jëfandikoo baax na trop ci wàllu gémmiñ surtout wàllu siiñ ñi nga xam ne seen siiñ yi day naaj wala ñu am ay pat ba ci wàllu bëñ ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe wàllu bëñ bëñ yuy métti gis nga bëñ yuy métti nii rek tey boo ko saxoon ne tuuti yéeyu ko tuuti bàyyi ko sa bëñ gémmiñ muy seet noonu ab diir nga de ko def léegi nga tàggoo bëñ yooyu di métti boo ko mënul nga def ko sunguf sax ko noonu boo ko mënul ba tey def ko sunguf boole ko sa pat dentifrice di ko borosoo ci wàllu bëñ lu ci baax trop la ci wàllu gémmiñ baax na lool ci wàllu bopp ba ci métit bopp yi ndax bokk na ci yi nga xam ne day dal aw métit maanaam lépp luy métti moo xam bopp la wala yaram boo koy jëfandikoo ci saa si dafa am ferñeent yoo xam ne yu gaaw la ci luy dalal loolu bokk na ci yi nga xam ne day tax hmm, nit ki am appétit soo koy boolee ci loolu di ko jëfandikoo dina tax léegi lekk bi ngay lekk normal jafe-jafe ñàkk lekk yooyu yëpp yàlla mën na la ci defal tawfeex bokk na ci njëriñam it mooy wàllu xel muy tey wala wàccu surta jigéeni wér yooyu nga xam ne toujours suñ nekk ci seen wér njëkk yooyu baax na ci trop suñ koy booleeg dara wala ñu sax doom bi noonu rek yéey ko tuuti bàyyi ko seen gémmiñ baax na trop bokk na ci yi nga xam ne day setal di dindi wàllu tooke ci wàllu yaram ban su ko nit ki jëfandikoo mën na setal yaram ba xeeti métti yooyu nga xam ne tey wàllu produit chimique yi ñuy jëfandikoo wala ñuy noyyi moo koy def yooyu yëpp suy jëfandikoo xorompole boobu loolu suñu borom mën na ko ci saafara bokk na ci li nga xam ne baax na it ci wàllu mémoire su ko nit kiy jëfandikoo mën na tax xelam euh, a xalaatam yëpp gën a jub bokk na ci yi nga xam ne baax na ci jafe-jafe wàllu lekk mu rees ba ci wàllu gaz yooyu yooyu yëpp su ko nit kiy jëfandikoo ba ci xeetu infection yi di wàllaate yooyu yëpp bu ko nit kiy jëfandikoo moom xorom fale ba da ko ci aar da koy sàmm ba ci wàllu xol ba ci wàllu foie wi ndax tooke yooyu nga xam ne toujours la ci nekk wala loolu nga yëg jam bu koy jëfandikoo ba ci xeetu hépatite bii ngay gis loolu am nañ ci résultat yu wér yoo xam ne am na ku ma wax ne ma biñ koy xool ba gis gis nañ euh, mu àgg foo xam ne waaye xorom pole bu mu ko jëfandikoo daf mujj wàcc wàññi wàññi ko wàññin woo xam ne jéggi na dafa ba loolu sax ñi ko doon xool loolu jaaxal na leen ci wet googu te dara defa ko lu may xorom pole boobu kon loolu bokk na ci nga xam ne virus muy salal googu muy salal léegi doomu jàngoro yi ci deret ci yaram yëpp loolu da koy def bokk na yoo xam ne baax na lool ci wàllu cerveau bi wàllu yor te loolu mooy tax nit ki wàllu yëg-yëgam ak nekkinam mën a gën a dal su koy jëfandikoo loolu baax na ci trop ba ci wàllu dënn ñiy saqat noonu dënn yi riir wala mel noonu moom itam baax na trop ba ci wàllu góom yi sax ngay gis baax na ci trop su fekkee ne am lu métti su sa góom yi di métti ba koy naan loolu da koy dalal bu baax a baax ba ci wàllu rhumatisme baax na ci trop ba ci sax ñi am suukar nii baax na ci ñoom trop ci wàllu suukar boobu surtout mu dagg ko noonu xooj ko noonu léegi di ko naan juróom ñaari xorom pole rek mu damm ko noonu def ko ci kaas bàyyi ko ba mu fanaan ci ndox bu xëyee mu naan ko baax na ci lool ba ci wàllu saqat su bon soosu ñu daan wax baax na ci lool ba ci sax wàllu yii nga koy tuumaal naan boo koy lekk boo koy jëfandikoo xëy wàññi sa ngóor ak nangam waaye loolu nekkul ba ci ñi nga xam ne sax dañuy gaaw a yegg loolu moom baax na ci trop ndax garab yu bari ñu di ko jëfandikoo dañ koy boole moom te loolu bokk na ci yi nga xam ne ñu di ko jëfandikoo ngir góor ñi nga xam ne loolu da leen dal suñuy am rapport ñuy gaaw a yegg suñ ko boolee li ñuy jëfandikoo baax na ci trop ba ci wàllu yaram wi tàng tàngoor woo xam ne doo xam lan la su koy jëfandikoo baax na ci trop ba ci soxna yi nga xam ne dañoom am jafe ci wàllu bu ñu gis baax muy métti wala muy jànk jaar yoon sax waaw baax na ci loolu wala sax muy suñ biir di métti gu mel noonu te xeeti crampe yooyu di ko def loolu yëpp. dox nañ ko ba ci wàllu tension bi sax même bu di yéeg bu ko booleeg meew surtout di ko tàngal di ko naan baax na ci lool da dimbale. ba ci tawat sax li ma waxoon ci wàllu der ndax bokk na ci produit yi ñu koy liggéey di ko jëfandikoo ci wàllu der baax na ci lool baax na lool ci wàllu soj nga xam nañuy soj wala sëqët wala eh, ñëw kàttan ci wàllu sëy yooyu yëpp ba ko nit kiy jëfandikoo baax na ci ba ci ñii nga xam ne sax dañuy maqali muy tuxkat yi nga xam ne dañuy tux ba seen dund yi mel ni fu ñu toll mu ngi riir loolu buñ koy tàngal moom itam di ko naan surtout boole ko meew baax na lool mën na dem ba seral loolu nga xam ne tey daa nekk ci seen wàllu kon gis nga ko yii yëpp ay mbir la yoo xam ne yu baax trop trop trop yoo xam ne tey dañ koy fajo ba ji sax wàllu angime bi nga gis ñi nga xam ne dañoo leen yàpp buñ koy tàngal moom itam léegi di ko naan baax na ci trop ba ci ñi nga xam ne nelaw da leen jafe wax loolu mën na am jafe-jafe ci wàllu neer yi ba ci wàllu deretam comme ni muy doxee bu koy tàngal moom itam di ko naan baax na lool ba ci wàllu gis-gis sax waaw yooyu moom bokk na ci mag ñi sax daan nañ ko wax soo bëggee gis-gis bu leer ataaya bi wala li ngay tàngal nga di ko tàngal léegi di ko baaxal di ko booleegi meew léegi di ko naan wala nga boole ko ataaya wala sax même café bi di wala ko moom di ko naan baax na ci trop mën na defar tawféex ba jafe-jafe yi nga xam ne tey moom day am ci wàllu gis-gis loolu ba ci wàllu génocide bi moom itam baax na ci lool bu ko nit ki booleeg li muy jëfandiku jàngoro yooyu nga xam ne doomu jàngoro yooyu nga xam ne microbe yi yooyu yëpp da koy faagal moo sëqat ak wàllu aju ci wàllu sëqat yooyu yëpp ba ci bronchite bu koy jëfandikoo moom xorompole boobu moom itam baax na ci trop te borom mën na koy defal توفيق با لولو من نديني بچي والو بن يوي ني وخون كوكو موم داما كو واخات ناخ باخنا سي لول بن يوي ميتك بن يوي بن اك يمي نان سو با سا من نكو يال باخال كو بام باخ مولي كو غور سيغ كو نون ديف كو سي بو بين بو جونال توجور مولي كو غور نون اب دير ديكو يابي ان شاء الله يالا من نكو ديفال توفيق بچي والو خيتو گيمن مو خام سي گيمن گلا نيك ولا صاح سي والو بير بي لا نيك واو ko boolek yiñ koy fàcce di ko yàlla mën na koy defal tawfiq ba loolu yëpp mën na koy saafara kon gis ko ba ci sax jigéeni wérul sax liñ koy bañ bañ bañ jigéeni wérul moom baax na ci moom su fekkee yemale na ko ndax lu baax la lool mën na koy dimbale ba ñooñu nga xam ne toujours dañuy am jafe ci suñu ambi comme doom ji xëy na du màgg ni war a màggee wala yu mel noonu loolu mën na koy dimbale sàmm ko aar ko ba jafe-jafe yooyu nga xam ne dafa def ak it ñi nga xam ne suñu ambi toujours dañuy seere seere yu metti yooyu ñooñu ba tey suñ ko boolee ci li ñuy jëfandikoo baax nañu trop ndax vitamine K boobu ak vitamine C boobu day dimbale nit ki bu baax a baax a baax surtout jigéen yi wérul jamono bu mu tolloo foofu te loolu lu am njëriñ la ci ñun kon gis nga loolu bokk na ci yi nga xam ne da koy dimbale trop ba ci li ma wax noonu nga xam ne jafe-jafe wàllu màgg boobu ndax calcium boobu ak phosphore boobu moom itam day dimbale xale boobu mu ëmb ba wàllu yax yi màgg ni war a màgg bañ yi noonu ba du am benn jafe kon gis nga ko yii yëpp ay tegtal la yoo xam ne ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu ba ci sax wàllu yaram ni surtout wàllu picc yi picc yi di feeñ ci kanam yi bu amee xorompale bi dëbb ko sunguf def ko sunguf boole ko ak lem laal ci tuuti limon di ko diw ci kanamam toujours trente minutes mu door koy raxas loolu wala vingt minutes incha allah loolu su koy def picc yooyu ci kanamam yëpp yàlla mën naa def tawféex pour dee yi nga xam ne doomu jàngoro yoo koy def ak jafe wàllu der yooyu yëpp. yàlla mën na koy saafara ba loolu mu dañ ba ci sax bitti biir bi métti ni koo xam ne biir bi métti da ko yëpp mu di ko tàngal noonu boole ko lu tàng noonu de ko naan wala ngelawu biir yooyu yooyu yëpp ba ci wàllu saan bii sax saan moom dañ koy def ba ci ñi am rhumatisme sofe-sofe yooyu di métti moom itam noonu la mel ñu koy jëfandikoo suñu borom mën a leen defal tawféex ba loolu day euh, kon gis nga ko loolu nag ay loram moom li may wax toujours ñu ngi koy tuumaal yu baree bari yoo xam ne xëy na. yi gën a bëri ay na ëppal ga la wala ñàkk xam waaye daal lorab moom bariwul ci bu fekkee daa yem te loolu nag mu ngi kenn bokkale ko sama morom kenn ku ne daal soo koy def defal ba yëg ne lii xam na saf na rek comp tuuti def yi nga defar naan boole li ngay naan wala li ngay lekk wala li ngay jëfandiku asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.